yaa gën lu ñuy bëgg ak wut yaa gën lu ñuy dox di mébét yaa mata bëgg mata wut yow kulam falu di buur yaa gën lu ñuy bëgg ak yaa gën lu ñuy dox di mébét yaa mata bëgg mata wut yow kulam falu di buur jóge nga yow faw fi suuf doo dellu yow mukk fi suuf safe nga doo sappee soof ñam nga wudul na bëgg xuur sant nga yow te santulu sopp nga yitte soppulu topp nga yitte toppulu yaaram bi jëf nga jëfi góor yaa mën sës rekk ci buur yaa mën a gaayi buur bégal nga buur ak gaayi buur ñépp a ngi ci yow buur naka ma xam ni duma góor te yar ba xam ni yaa di góor laa ñëw te naa jaajëfe góor saw de sa tax nit ñépp suur man duma lëf duma dara te kenn du lëf kenn du dara yow yaa di lëf yaa di dara làqanunun bu ñu nu dóor teeg ëllëg bu ñu nu dóor sunu kokit bu ñu ko dóor te kokamit bu ñu ko dóor noo ngi fi yow di sapiliir teeg ëllëg bu ñu nu daan sunu kokit bu ñu ko daan te kokamit bu ñu ko daan bu nu gisow lakka ku guur yonen ba def na la jiba nanga nu def fawu jiba te bu nu wàcc bu nu ba def nu ko jub ku bari muur nanga nu def ci bay ngërëm yooyu feesa feesa kii ngërëm tey feesa feesa kii dërëm faw te def nu waaye buur jaaraama gaayu bambay bamba di sangub sang yi yéena di njiital dongay am ngeeni ndam tey ak ëllëg seenub sëriñ tey moo fi gën gannaawam it yéena fi gën moo gën sëriñ si yéena gën nag seeni kem bég leen bég lii fàggu sax mayewu ko ite jure yi mayewu ko pexe mu rëy mayewu ko mbay du mayam nawet bu jag ku yàlla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci donga yi nga xam ni ak baaxama nag yéen a gënub sëriñ ku ne yéen a gënu murit ku ne sëriñ bu nekk xam na ni yéen a gënu nitam bu dog asaka daa la sarax la donga daa boole di jox ab sëriñam te di ko wax sëriñ bi maakam ma ta yëg bennub sëriñ musulaam ku koy joxuk jur ak mbiram lu dul sëriñ bi ak ñoñam ku wedd lii mata alak sëriñ bi daala masaam ku koy joxuk jur ak mbiram di aw ndigal di wut ngërëm di boole guddee ki bëccëg jomb ko ngir def na lu kenn deful te daj na it lu kenn dajul te dem na fu kenn demul ba ñëw ñuy door a jóg ku jóg di daw dootoo ko jot ku waru fas dootoo ko jot ku war saxaari doo ko jot fa mun yàlla ko fa asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki julli yi mbokki taal bi ñu ngi leen siyaar bu baax di siyaare mbokk yi nga xam ñoo ne ci waañ wi di sàkku ci bis bu tedd bi di bisu waaju baax ku ñëpp xam ci yoon wi di yoonu Serigne Touba ci ginnaaw loolu nag euh, ñu ngi jéggul bu baax di nuyu suñu Muntaxa di ñaan suñu boroom mu guddal aw fanaw wéral ay cëram mboolem julit kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu mbokk yëpp bàyyiwun kenn mboolem famille jaxate rek bàyyiwun kenn bokk ci maam xaali rek bàyyiwun kenn kon bis bu tedd bi ñuy defal maam Modou xaali di doom si maam xaali ma jaxate kala ñu koy def ay ati at ren jii nag ñu ànd ñun njaboot gi ñépp rek di ko ñaanal kon fii mooy bërëb bi nga xamante moom la ñuy liggéey maam ci wàllum berne yi bërëb bi nga xam ne mooy euh, fi lañuy ñuy defar xéewal yi kon soxna yaa ngi fi ak euh, suñ mbokki dëkk ndooy ak mbokk yëpp kon ñu ngi leen sant leen gërëm taxawaay bi rafet na euh, di jiital ci nuyoo bi nag soxna Kiné Diagne soxna Aminta ak Lo ak soxna Yacine Ndiaye buñ ko waxee rek tudd nañ ñëpp kon daanaka ku lim juum baa doo matal kon nag sant na leen bu baax gërëm leen ak ñi ngeen àndal ñëpp seen liggéey rafet na seen taxawaay rafet na te nag ba ñuy ndaw lañ leen cee fekk ñu nekk ci doon ay jàmbaar kon suñu nee ba ñëw ànd kook ñoom kon loolu ndam la nekk ci mbir doon mag ba mag a magaak la fekk say doom fekk la fi ànd kook yow kon loolu wax dëgg yàlla ndam la te ñun ñu ngi ñaan ñu nit suñuy doom fekk àggale lépp muy yéene ji ba suñu sët sataat mboolem ku fi teew rek ñu ngi lay ñaanal nga fekk ay déwén waaw ah, kon suñ caméraman ñu ngi lay siyaar yow it la ñaan si bis bi tamit nga yàgg koo teewee ba am sa yëfi bopp lépp rek sukkuran waaw asalaamaaleykum waa rajo Bawal maa ngi nuyu di sant rek ci suñ màggalu maam gii rek macha allah di ñaanal xale yi njaxate yi rek xale yi am jom lañ ay ate ate ngi nii ñu am jom nag di ñaanal seen maam ñun nag ñoo ci wàllu xéewal yi rek nga ñun ñoo ci waañ wi nii ñoo ci soble yeeg waa wàllu jaxate-jaxate yi rek ak looyéen yi rek waaw dara jeexu fi di ñaan nag lépp liñ fi ñaan rek kaamil yi ñu fi wàcc ci suba lépp rek yal na boroom màggal gi nangu lépp rek ci barke yonent bi tañ teewaat fi ay déwéni déwén kenn bañ a manque ci kàttanu suñu borom loolu rek daal laaj amul ma ci doon sànni waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi sant ñëpp di kontaan ci ñëpp di sant suñu rakk yi bu baax a baax a baax ñoom ñi ñu jiital ci liggéey bi liggéey bi nga xam ne liggéeyu jaamu yàlla la kon nag dañ ciy sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla fekkewaat ko at yu bëree bëri barke Cheikhul Khadim barke borom bis bi te lépp luñ fi ñaan rek yàlla na ko suñ borom subhanahu wa taala nangu sët yi di ko defal seen ay ati at dañuy gone ba négé ñu nekk ci suñu waajur yi di ko doon ko def ak ñun ba xëy génn àdduna bàyyi ñu fii ñu ànd ko suñu rakk kon nag ñoo ngi ciy sant bu baax a baax a baax ñu ngi ci waañ wi di waajal bernde kaamil yi ñu fi wàccee lépp yàlla na ko suñu borom subhaana wa taala nangu ñuy waajal bernde yi rek nag waaw ndax moom murit moom camtam lépp bernde la waaw dañuy bernde rek nag jox gan ñi rek te du am xàjji ak seen incha allah rabbi waaw kay jërë ngeen jëf kontaan nañu baax baax.